mbokk yi ndax Ousmane Sonko takk ñetteel gi ñu koy tuumaal nii dëgg la wala dëgg génn kaso bi day jubali këram wala dafay dem séetali danañ ci àndi ay leeral sëriñ bi ne ma kaay maam lu ma la wax mais Sonko ci oto bi Diomaye Faye ci oto bi ñu war a campagne est-ce que lii mënta éliminer candidat yiñ ñu ko siqal danañ waxtaanee li xew ci dëkk bi am na audio nag bu fuité ñu ne Farba Ngom moom mooy wax ak ay Diop Fall wax ja yaakaar naa da ngeen ko vérifier ndax la ñu si dégg ñaaw na danañ ci dugg andi ci ay leeral danañ waxtaanee xam-xam jëmm ji nag sëtub sëñ tubaala la muy Serigne Saliou Mbacké ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi ñu soog a waxtaanee li xew ci dëkk bi. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu sante yàlla mi nga xam ne mooy kilifa ak ñëpp. di ko dellu sant moom mi nga xam ne moo taw féexal ñëpp di ko dellu sant moom mi nga xam ne lépp lu doomu aadama am moom la te moo def doomu aadama mu gën ci li bind lépp di ñaanal réew mi jàmm di ñaanal waa bitim réew jàmm. di ñaanal yéen ñi nga xam ne tamit yéen a fi nekk jàmm di ñaanal ñi nekk si loolu hôpital yi suñu borom fëgg seen bopp bañ dellu seen njaboot. di ñaanal itam ñi nga xam ne caabi di leen féete ginnaaw suñu borom génn leen bañ dellu seen njaboot di leen jàmm bisimilah. sëñ bi jàmm réew mi saa suñu nee ba jàpp ne dana taxaw rek fitna am am na audio bu fiyutewaat ci diggante Farba Ngom ak euh, Aïssatou Diop Fall wax gi nag Sénégal yëpp ñu ngi koy ñaawlu. tey ban jàngat nga am ci suñu kilifa yu nekk Sénégal saa su nekk rek ñuy gis ne buñ nee ñii ñoo war a nekk référence bi rek ñu day jekki jékki dem ba jàgg xam ne ñii est-ce nañu sax référence. waaw xam nga li may wax si loolu mooy mbir mu nekk da xam cosaan la. Farba boo xamee fa mu cosaanoo. am na si yoo xam ne euh, bu mel ni amee du la bett. Aïssatou itam boo xamee fa mu cosaanoo am na yoo xam ne bu amee du la bett. te nga xam ne tamit euh, nit ki lépp loo xam ne def na ko mu siiw rek eh, ak ni ñu waxante ñoom ñaar da xam ne lii lu ñu yàgg wax wax wax wax la ñoom ñaar nekkut si lu bees ay mag nag bu diine amul ci ñoom xam-xam amul ci ñoom ak yar amul ci ñoom yu mel nii rek lay jur waaw loolu rek laa si am solo may wax ci loola. mais Mbacke Balla tey dañuy waxtaanee lenn loo xamante ni mooy génn Sonko ci prison bi tax na ñenn ñi ne nañ sunkoo takk na séet xale bi fi mu dëkk ak turu xale beeg ku yaayi xale bi. ak xale bi fan la dëkk ci réew mi danañ ci dugg mais balaa boobu sëñ bi seet lan la mën a génnee digg naa seet rek moo la mën a wax di diw mooy nekk président wala diw mooy nekk député wala diw mooy gagné wala élection yi deuxième tour lay nekk wala élection yi premier tour la kii gagné di gagné lan mooy cëslaayal seet. waaw élection yi euh, seet dëgg dëgg seet mooy maanaam mbir mu nekk bala saa doomu aadama dugg da ko war a seet ba xam ko. Mm-hmm. ndax bëri na si loo xam ne am na si lislaam tey. Mm-hmm. ak ceet ak gëstu moo tax loolu moo tax loolu ñu mën see teg loxo. ndax euh, yu mel ni xare Badar ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. am na yoo xam ne ay mbir yoo xam ne wax nañ ko yonente ba mu leer ko nañ ci moom suñu borom wax na ko yón nañ Seydina Jibril mu wax ko yonente bi mu leer nañ ci moom moo tax yonente bi doog a doogaloon dem ca loola te ba mu fay dem tamit ak pas-pas ak ak ak ñam àndal pas-pas ñu am am am gëm ne daan daan daan gañe sa loola moo tax te lool li koy mayee nag ak seet ak gëstu bu baax a baax la ndax nit ki ndax euh, tey tubaab yi nga xam ne tey mm-hmm. euh, ñoom la suñu borom jay bañ mel nen la ci àdduna mm-hmm. bañ nañ ko ba buñ dee defar oto wala ñu defar leneen dañ ciy def radar pour muy seet pour muy xool li nga xam ne ñëwagul moo nekk ci kanam mm-hmm. sàkkantumaa nag dundug doomu aadama moo gën a foor lépp mm-hmm. te lépp loo xam ne am na ci kaw suuf rek doomu aadama moo ko moo ko fa def suñu borom saxal loolu ci doomu aadama kon moo tax am na loo xam ne mënoo nit mënu koo def mukk te seetu ko te seet tamit faaw nga xool ko biir ak biti moo tax ginnaaw ba ñu nit ki bi ñu nit ki woowee laaj ñu laaj ko turu waajuram mu góor ak wu jigéen ak ñaata at am sa la ñuy sukkandiku. xoolal ko wax ko loo xam ne téere lenn du ko dindi ci kaw suuf dara dara du ko dindi. danañ ko wax wax ko ay tur wax ko ay sant. wax ko fañ dëkk. bu ko neexee bu ñu woowee sax bu mu ñu wax ñun daan jaar si lépp wax ko fa nekk ndax nit ki bu la wooyee nara nga ne ko noo tudd nangam nangam daanaka kon euh, koo xam ne woo nga ñu jëflante nañ si wàllum seet ne gis nañ la bu baax a baax. boo ñu jëflanteeg bu ñu bu ñu la gisul lépp loo ñu seet la ko. te bu la neexee bu ñu fay dara si seet si dara képp ku la seetal sa a rafetee jënam gën a jaaroo yoon bu soobee yàlla. ngay sëtub sëñ Touba di sëtub Cheikh Sidi Mokhtar sa maam sëñ Baara menn moom mooy doomi siñ Touba ji juddoo Touba kon baatin yàlla daf la koo jagleel ci baatin boobu ci laay ñëwee laaj la dama dégg dafa am secret bu garaaw boo xamante ni ci àlliwa nga koy bind mu nekk secret boo xamante ni ku ko xas a jëfandikoo bu doon dafa ñàkk dana mbuur sëkk bu doon dafa ëmu ëmu ko dana dañ bu doon cat da koo jàpp car ga dana dañ àlliwa bi dégg naa loo ci bind ba raxas ko ba jox ko nit ki bu ko jëfandikoo ci yaramam rek mën na faa jaare ay mbiram tàkk secret àlluwa bi tey bëgg naa nga ñëw ci. waaw àlluwa ji maam nii nga ko gisee ni ay kilifa yu baree baree bare bare si lañ dal jàng. te tamit àlluwa yi barkeelu la. te am na ñu baree bare xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax. te am na lu àndal tamit. moo tax bu suñu borom dogalee ñu ci jëflanteeg yow. am na loo xam ne xaatim boo xam ne dañ koy bind ci àlluwa ji. ndax xa ji suñu maam. si moom lañ ko jëlee. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne si kàgg gi ñu joxoon bokk. am na loo xam ne bu ñu la ko si bu ñu mhm. la mhm. dañ la ko si defal. Mhm. soo ko naanee am loo ko booleel. incha rabbi balaa am fan yu balaa am 24 heures di gis ne sa lépp loo xam ne nekk na ci dina deñ. alliwoo jaal alliwoo joo xam ne alliwoo kiimaan la te képp koo xam ne jëf jëf jëflante nañu si yow si alliwo ji mm-hmm. xam nga ne alliwo ji kii kiimaan la mm-hmm. ndax alliwo dafa am lu baree bari lu si nekk mm-hmm. xale bu am juróom-ñaari juróom-ñaari at wala juróom-benn at bu ñu ko daal jàng àlli woo ji la ñuy teg si luppam ah. te xale bu si fer ba pare dañ koy nangu si kooku de joxaat ko keneen ah. da gis benn àlli lu mat fukki xale juróom-ñaar si la ñuy fer ay ji si la ñuy fer ij si la ñuy defee lépp loo xam ne si si la xam-xam nekk te am na loo xam ne mi ngi si àlli woo ji te ko wax ci kaw ndax dafa am ñoo xam ne boo ko waxee ci kaw rek dafa am ñoo xam ne ay tappalekat lañ te mën nañu nañoo jël loola di ko di si wër di ndax nit ñi te loolu la ñu bañ. mais Mbacke Balla bëgg naa dugg ak yow ci xam-xam boo xam te ni kàggu la yu loo sa maam joxoon muy kàggu gi ci biir kàggu gi am na fas gu ci bokk fas gi nit ñi miin nañ ko ñu bëri sax nangootuñoo naan léegi ay xeeti lu mel ne ay comprimé wala xeet yi ñuy màcc ngir bëgg sëy fas gi la takk rek takk ko séy ak seen soxna yàgg ci moom lii nag secret la. waaw gis dégg parce que bi ñu bindee kaamil ba noppi. chaque jour ma wax ko yóbbu yóbbu ko sëriñ bi. si la sëriñ bi jox loo xam ne jamono dina ñëw. di ko soxla. te tamit euh, jamono dina ñëw. Mm-hmm. Euh, loola di loola dina dina indi jafe-jafe nit ñu bëree bëri mm-hmm. moo tax bi ñu sëriñ bi joxee lii maanaam muy fas gi fas goo xam ne fasuk néew kàttan la mm-hmm. moo xam muy awrawu lax awrawu nooy koo xam ne boo dajoo rek soxna da ngay da ngay gaaw àgg mm-hmm. ak koo xam ne dafa da ngaa mënoo am doom ak yeneen yu demee ni ko noona soo takkee fas gi ñaari waxtu lañ la may lépp loo xam ne wax nañ la ko ci loola suñu bal bi ko saafara te fas gi a tiir a néew wàllum néew kàttan la wàllum néew kàttan moo gën a néew su fas saafara tànk yu métt da koy saafara ndigg lu métt da koy saafara te li ma yàgg wax juróom-ñaari nit yoo xam ne bokkuñu bu ñëwee nañu sëñ bi la jox juróom benn ñeenti nit ñetti nit yoo xam ne bokkuñu bu ñëwee wax ñu lool rek dañ la jox fas ñaari waxtu wala ñetti waxtu nga tàggoog ni jafe-jafe yi néew kattan ay ci numéro yooyu mooy numéro téléphone Serigne mbakke Mbacke Sidil Mokhtar képp koo ko ci woo rek eh, dina koo jot sëñ bi nopp ku góor ki fexe ba ku jigéen ki bëgg ko ba du am ci moom sago wala ku jigéen ki fexe ba ku góor ki bëgg ko ba am ci moom sago dégg nañ am na secret bu doy boo ci liggéey koo ko defal danañ bëggante te kenn du leen mën a tàqale secret nopp. waaw nopp gi lii la ñuy jël léegi bu ñu ko jëlee dafa lii nii dafa am eh, xasum loo xam ne moom la waaye duñ ko wax. moom la ñuy jël lii ay fas la. Mhm. gis nga bu ñu ko defee boole koog lii. am na la bu ñu ko defee boole koog lii. juróom-ñaari fas fas lañ koy fas. ñetti fas fas dañ koy fas maanaam juróom-ñaari fas. Hmm. am na lañ koy booleel boole koog xaatim bi hmm. bu ñu joxee lañ la jox nga def ko. Hmm. incha allahu bii balaa mat ñaari fan mm-hmm. lépp loo xam ne wax nañ la ko si jigéen gi wala wax nañ la ko si góor gi di nga si teg sa loxo te kenn mënut tax loola dañ mm-hmm. te am na noob yoo xam ne da nga koy def ñetti fan ñeenti fan wala fukki fan wala un ko joxee mm-hmm. mook fas gi mook ak fas la wax ci noob gi boo ko gisul boo ñu woowee lépp loo ñu joxoon ñu delloo la sab xaalis te foo nekk boo boo ñu joxee turam ak ko du jar nga koy laal du jar ngay du jël dara jox ñu turam ak santam ñu dugal ko fii am luñ ko boolee ak si fas ko incha allah rabbi nem mu lay def lépp loo wax waaw lay wax loo waxul déedéet lay wax bu soobee yàlla. sëñ bi Mbacke tey yaakaar naa xam-xam li la ci yàlla defar bëri na mais kaaraange lu mën a aar nit ki xam nga dañoo nekk ci jamonoy campagne politiciens yi am na ñoo xamante ni nguur jaral na leen lu ne bëgg falu jaral na ñenn ñi def xeetu ñaawteef yoo xamante ni maara day taali ki bëgg mucc fan la mën a def mucc ba kenn du mën ci moom dara. kaaraange am na si yoo xam ne euh, ndombak tawféex la mm-hmm. ndombak gi juróom-ñaari gaw lay doon am na tulu paaka am na tulu fital ak yeneen yu demee ni ki noona ndomba gi boo ko takkee bu ñëpp maasa woon néewal doole wala ñëpp maasa bëgg laa faagagal boo gawee juróom-ñaari gaaw suñ boobu dina la euh, du boo la fi ñëwee li si bat doona ko gis mooy dafa koy laaj ñooy bari waaye incha allah rabbi képp koo xam ne suñ boobu dogal nga ne kaaraange bi ñu nekk muy politicien muy ku mënti doon bu suñ borom dogalee nga ñëw si ñun incha allah rabbi bu neexee yàlla lépp loo xam ne kaaraange danañ la ko defal te incha allah la danañ si duggee si jàmm danañ si génn si te lenn loo xam ne gàllankoor du bu soobee yàlla suñu borom dina la ko teggil. dina la ko teggil euh, bokk na ci nit ki nekk bitim réew wala ki nekk fi bëgg tukki jafe-jafe papier rek la am sama am Cheikh Sidi Mokhtar li mu dimbali ci ay nit ci wàllum papier kenn xamul nu mu toll danga ko daan ñëw siyaar si mu tekk weer yi xool la nga fas sa aajo dem sa aajo faju baatin boobu mu ngi ci yéen sët lan moo gën a gaaw ci papier. waa gis nga lii nii la jox nii bu ñu la ko joxee dafa am xaatim boo xam ne moom lañ koy booleel fii do jëruñu koy wax sungufus mbi sungufus lëf la loo xam ne kenn du ko wax waaye buñ la ko joxee ñett buñ la ko joxee boo ko sangoo sangoowee sungufus lan la sungufus lëf maanaam la kenn du ko wax waaw mooy sungufus lëf mooy olof mooy mooy wax bu gisee dara maanaam lii de lëf la waaw moo tax ma ne sunguf si sungufus la maanaam ba suñ borom dogalee nga jëfandikoo ko am na fas am na sunguf am na lu ñu koy booleel ak ab xaatim euh, boo doon wuti kayit ah. kenn mënutatee bu nekkee benn mhm. boo doon nekkoon ñetti kenn mënutatee loolu ñu teg ko sorox bu soobee yàlla wallaahi lii sunguf si la may këyit gooy wuti kenn mënut tee nga nga jot si bu soobee yàlla bu da ngaa bëgg a génn réew mi soo ko sangoo balaa mat fukki fan ak ñeent mhm. incha allah rabbi nga génn réew mi bu nekk bitim réew hmm. ko tàmbalee sangoo benn fan ba fukki fan ak ñeent ya balaa yàgg dana la woo ne la kaay jël sa dee dafa dem lu yàgg takk kenn waxul dara boo ko sangoo balaa man ñaari na hmm. bu dem dana nekk foo xam ne na lii moom lu mu yàgg yàgg doo si jot hmm. dana la woo wax la sa information te balaa mat fukki fan ak ñeent say loo xam ne jox nga ñu ko bu soobee yàlla dana la ko delloo sëñ bi li ma jaaxal dafa am xeetu doomu aadama yoo xamante ni dara mënta toog ci seen loxo lu ñëw dem lu ñëw dem lan mooy solution bi. waaw loola mi ngi nii lii la lii la ñuy jox kooka buñ la ko dafa dogal ne da koy def sa poos. am na loo xam da nga coof sangoo ko ñetti fan. lépp lu ñëw sa loxo dina na la ko dina ñëw sa loxo lépp lu foo am njariñ nga dugal bu soobee yàlla. waaw mi ngi nii lépp képp koo xam sa loxo dafa bënn mënoo jëriñoo sa alal incha allah rabi boo ko boo ko yoree di nga ko jëriñoo te di nga xam fa muy dugg te lépp lu ñëw di ko sàmm bu soobee yàlla te képp la dig dara dina ko jox ma gis ne bokk nga ci sëriñ si nga xamante ni li ngeen di yónnee garab bi réew bëri na boo xoolee li fi nekk ci ay xaatim mais dafa am sëriñ soo ñaan loo mais bu ñu ba jot xaalis rek du ñu yónnee garab du ñu def dara lan ngay wax sëriñ soosu. waaw xam nga dafa am loo xam ne ñun suñu ñun ñun ñi nga xam ne ñooy wooyee suñu bopp ay sëriñ nekk doomi daara yaroo si daara màgge si daara dafa am loo xam ne nit ki da ko war di jomm te di sóoraal ne ala kulli xaal bis dina ñëw nga faatu te boo faatoo sëñ Tuubaa neen na luqatul fatir ak luqatul nati naxiir bala bis booba loo xam ne nit ku si nekk bis dina ñëw danañ la jël dafa la juróom-ñaari mètre mètre percal sang la ba nga set gas pax moo xam ne juróom-ñaari xasab la dugal la sa te bis booba lépp loo xam ne su doomu aadama bi jëf na ko lu baax ala kulli xaal safaan da lay si biir bàmmeel lépp nag bis bis lépp loo xam ne jëf nga ko lu baax lu mu bari bari bari suñ la fa dugalee di nga ko di nga ko xeeb kon nag kenn ku si nekk na nga sóoraal nit ki bu heure bu la joxee xaalis mm-hmm. na nga jël xaalis ba mu la jox mm-hmm. sóoraale bis ba bis ba nga xam ne mi ngi ñëw ñu gas la ba nga xóot suul la mm-hmm. te xam ne lépp loo xam ne yoreen nga ko doomu aadama bis dina ñëw nga fay ko te alalu alalu alal xaalis kay kese la mënut a faj dara loolu soxla te tamit nit ki nga xam ne ngay ñaanal nit ñi li nga war a sàkku sa diggante ak suñu borom ñaan ba am aajo ju faju aajo ju faju boo ko amee soxla soo am suñu borom dina la ko fajal am na loo xam ne du ko jar te képp koo xam ne yaa ngi ñaan di lekk xaalis di lekk xaalis jàmbur wala ngay def naka suuf noona bis dina ñëw li sëñ Abdoulaye waxoon rek naxa naxee ñetti fan la bis bi ngay naxee bis bi ñu la xamee ak bis bi la ñëpp bàyyee te kenn ku nekk jar na xalaat bis booba mm-hmm. te tamit lépp loo xam ne tegewut ci yoon ci mbirum ñaan mm-hmm. nak nañ ko bàyyi nga xam ne tamit ñooy ñaan ñaanloo nañu xam doomu aadama yi ñaan ñaanloo ñooy ñan xam nga tey jekk jékki rek xëy suba toog si internet damay ñaan damay faj nangam nangam nangam te am na loo xam ne nit ñi ñoo war a am xel seen seen si ñoo war a xam seen bopp mm-hmm. waaye nag képp ku sonn da ngay jaax képp ku jaaxle da ngay jaxasoo loo gis mokku lab ñooyam loo gis luñ lu ñu sànni rek da nga say téye da nga yaakaar loolu moo la sofe waaye nag suñ borom mi nga xam ne moom mooy dimbalab jaam moom moom mi nga xam ne mooy suturalub jaam ñi ñaan yàlla nañu gën a sutural yàlla nañu gën ba képp koo xam ne suñu borom dogal nañu wax nañu xaajoom aajoom faju jaar si ak képp koo xam ne dégg nañu xaajoom aajoom faju jaar si ñun képp koo xam na nga ko bëggee woon ñi ngi ñaan si suñ borom ko bëggee woon suñu borom dogale noonu ba sa ba sa aajo faju bu soobee yàlla euh, sëñ bi Ousmane Sonko boo xoolee mën naa ne bu doon bataille la ma ne gañe na la ci ëpp mais politiciens yi bu ñu tollee ci élection kenn ku nekk ak ni muy campagne waxante lu ñaaw jëfante lu ñaaw tey looy dénk Sénégalais yi. waaw campagne bi moom euh, day tàmbali. te waaye nag am na su na ko nit ñi yaakaar noonu demee du demee noonu. ndax am na su baree bëri yoo xam ne kenn waxu ko. waaw te euh, waa kër Ousmane Sonko mhm. euh, ñoom ñëpp yaakaar nañ ne Diomaye ak Ousmane jël nañ réew ba noppi. Mhm. la ma yàgg a wax rek dañ def ndànk. Mhm. ndax yëf yi mën naa changé lool ba jéggi dayoo. mën naa soppeeku lool ba jéggi dayoo. ndax am na si loo xam ne. kenn du ko wax. am na si loo xam ne dee su koy wax. waaye nag li ma la mën a wax ba wax la ko mooy. Euh, réew mi ka koy jël. Sénégalais yi tuddaguñ turam lu bari. Euh, loolu nag euh, neexut a neexut a wax waaye ku koy jël Sénégal du dugguñ turam bu bari. te tamit euh, la ñuy wax mooy. nañ yéene dëkk bi jàmm yéene Sénégal jàmm. te pas-pas bi nga xam ne am nañ ko ci Sénégal. ñi nga xam ne ñooy wut réew mi. ñi ngi ñaan suñu borom jox jox ko jox ki nga xam ne. moo gën ci réew mi waaye nag. ña nga xam ñoom am na si ñoo xam dañoo yaakaar ne. yooyu mi fi jamono ji ñu toll tegee na si Ousmane loxo Ousmane ak loxo Jomaay. te te loola amagul. ndax suñ borom lam denc. doomu aadama du ko xam. te nam koy làqee. mooy li olof di wax naan garab guy sax si penc am ba di ko la koy joxe. moo tax buñ suñ borom dëggee bëgg nañ Basiru ak Ousmane jot réew mi am na yoon yoo xam ne buñ sa jaaree. suñ borom dina leen gën a tawfal tawféex te lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci réew mi suñ borom dina ko def dina ko saafara si ñoom waaye nag nañ def ndànk te xam ne Bass ak Ousmane jotaguñu réew mi. ñu la nga tàggatoo ak askan wi lay suivre ci MPROD TV. waaw ma ñu ngi sant ñëpp waaw te euh, bala maa tàggoo dafa am loo xam ne naa ko wax dafa am benn sama benn dong bu ñëwoon démb euh, ma lu ma ko waxoon jamono yële. te maa ngi ko waxoon ci euh, waykat boobu nga xam ne sekk la sant dama nekkoon balaa am fan yu néew di nga dégg lu doy waar jaar ci kawam. te eh, dama ko waxoon de mu ñëwaat ne ma sëñ bi la nga waxoon man gis naa ko ma bëggoon nag ñi nga xam ne jege nañ ko nañu waxtaan ak moom ndax gis nañ lu rëy a loo xam ne su góorgóorlu tuuti moom moom lay dal yàlla xam na ko te alxuraan laa tiim alxuraan alxuraan laa tiim te gis nañ ne loo am na su lu rëy a su deful ndànk bu baax loola dina ko dina ko dal te balaa mat ñaari weer ba ñetti weer laa laa la wax nii moo tax ñi ko jege nañ ko gën a bàyyiloo xel gën koo taxawloo te loola dina nekk coow loo xam ne coow lu rëy a rëy te dina si bëgg a génn mu toog ko ba sooba yàlla moo tax na waaj bu baax a baax a baax euh, sëñ Saliou Mbacke la ñu fekk soon tey doon def ak moom jotaay ngir waxtaanee li war a xew ci dëkk bi rawatina élection yi ñu jub si muy campagne bi euh, kenn ku nekk di ci doxee na ma ko neexee moom nag borom baatin la sëtub Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke la ay sëtub sëñ Touba la ku yàlla dimbali ci wàllum xalima mu mën koo bind man gàllaaj man li nga xamante ni moom mooy liggéeyal nit ki mu gis résultat ci lu gaaw ay mbiram nag joonu joonu la nam la koy defee defelee noonee nga koy gisee ndax du koy waxantu borom baatin piir la. ayca numéro yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk ñu doon topp du ñu suivre ci yàlla ngeen bari jàmm ci dara darajey Muhammad Rasulullah